ñaareelu bisu ngan gi mu amoon ci Touba conseil supérieur bu imaam yi ak jàkka yi nekk foofu ci réewum Côte d'Ivoire bokk na ci yiñ fi nemmiku muy mu jama Cheikh Ahmadul Khadim Cheikh Ayma Ousmane Diakité mi nga xamante ni mooy njiit li ànd ak délégation bi ci njiitu Sëriñ Ahmadou Badawi ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké nemmiku université bi ci nemmiku bu yaatu ci ngoonuk tàkkusaan gi nag ci lañu soog a agsi ci xalif général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu dara leen sant leen ci seen teewaay ci seen kàddu moom imaam Diakité profité wax na ni lii daal du dara lu dul firndeel ak cant boo xamante ni xamuñu fu mu yem seen diggante ak sëriñ bi naka noonu itam di sàkku ci moom ak ñaan ci Côte d'Ivoire ak réew yu ko wër naka noonu itam di sàkku kenn ci ñi nga xamante ni moo leen di tànn moom sëriñ bi ngir mu bokk ci seen kuréelu ilimaan yooyu. yi a fàtte itam Côte d'Ivoire. ci say ñaan de nee euh, na lu jëm ci wàllu euh, kër googu nga xamante ne jàngukaay la dencukaayu téere mhm. nee na ñoom jekk nañu ngir jàppale projet boobu ba mu sotti. moo tax imaamu yamu sukkur mu indaale ko loolu rek a tax moom ñi topp ci moom bare na waaye li tax imaamu yamu sukkur moom xam ne foofee la ñu am barab boobu loolu tax mu indaale ko nee na Côte d'Ivoire ñoom dañ daan gis murit yi rek ci sori nii rek mhm. waaye nee na sa jëf nag bi mu ñëwee nee na dootuñu ci dara loo xam ne murit yi dugguñu ci biir ci ay kàddoom moom Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xam le ne ni lii dafa bokk ci liy dëgëral lislaam ak li nga xam ne moo koy firndeel di ko may doole dénkaat na leen itam bokki taalibe yi nga xamante ni na nga foofee ci réew ma te lenn ci seeni jëwriñ teew ànd si ak na mbégte mu réeréer mi mel na ne gan jóge ni ñu jóge ñëwee fi ñëwee ni fi loolu mel ne noo koy door a loolu moo tax mu am mbégte mu rëy. dégg nañ ni mu waxee bu baax a baax dafa mel ne ndamal lislaam rek la ko moo tax mu am mbégte mu rëy te am dolli ko yaakaar ju réer nas bu wax ne def nañ ko ci te kodduwaat loolu fa tabarakallahu eh, lu lu rëy ci lislaam lu am njëriñ ci lislaam la moo tax kon noonu kon noo ngi leen donc nuyu nuyu mbooloo mu baax mi mu àndal bu baax gi ay ma yi mu àndal ñu xam nañ li leen yëkkati bu baax a baax xam ne loolu liggéey lislaam la. laata muy tàggoog ñoom nag yëkkati na ay at yu am solo jox leen ko muy ay téere ak yeneen bagage yoo xamante ni jébbal na ko ilimaan ji mu bég ci lool soog leen a jiite timis délégation bi nag laata ñuy wàññeeku ci daara Hizbut Tarqiyyah yi nga xam ne ci lañuy daloon jaar nañu ci jumaa ju mag ji ngir nemmi ko gisal ko seen bopp foofee sax daje nañu fa ak sëriñ bu Bousso imaam lépp di firndeel seen mbégte ak itam xam bu yees bi nga xam ne am nañ ko mu dolli ko ci yoonu murit bàyyi ci ñoom